kaanu ibaadan bi taatin li rabbihimoo wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati kaanu yacudduuna tarkal wirdi maa shibahin min alxalaali min asbaabi almusibaati sëriñ tuuba xaadimu rasuul di mu jaddit boo xam ne sunu borom da ko baaxe mu jug jamono mu ñëw génnee leen ci lëndëm yóbbu ci leeruk tarbiya mu feeñ ci jamono yoo xam ne dafa ñëw ngir yeesal lislaam ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam woowaat jaam ñi teg leen ci yoonu tarbiya ginnaaw bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal ne ko mu tàggat leen ci yar leen ci yitte ju kawe di leen gàll ay jaamu yàlla yu diis ngir notloo leen seeni bakkan di leen dénk ñuy muñ ci lépp lu mu mën a doon di leen xemmem loo it jaamu yàlla ak njariñ ya ca nekk di leen jox ay werd yu wuute ngir tàggat leen moom it mu nekk ci ak ñoom daan jëfandikoo werd yu wuute ba ni mu defee alxuraan muy werdam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesalal ko werd yëpp mu nekk ca ba ni mu jugee ca tukkib géej ngir ñu xam werd woowu nag ak ni ko sëriñ bi jotee ak i njariñam faaw kon ñu laaj lan mooy werd ci tasawuf lan mooy werdul maaxuus nan la sëriñ bi daan jëfandikoo awraad yu lu jiitu muy am werdu boppam jamiil qawmi arbaatun biha yu'azzazu bunyaanul wilayaat euh, waaw wird bu ñu ko waxee ci biir diini lislaam mënees na ci am ay déggin yu wuute maanaam euh, wird ci biir diine ji rek ci lislaam ci boppam rek am na piri muñ koy firi moo xam ne moo gën a yaatu Euh, bu ñu ñëwee ci ñi nga xam ne ñooy ahlu tasawuf it am na firi mu ñuy firi am na firi mu ñuy firi wérd woo xam ne moo gën a moo gën a xat mu mel ni werdu nag day lu am solo ci lislaam waaye rawatina nag ci yoonu murit ndax bu ñu delloo ci njàngaleem sëriñ bi muy téere yi nga xam ne ci lay jàngale aw gis yi dem ci yoon wi te dara génn ci alxuraan sunna muy masaalikul jinaan boobu nga xam ne bokk na ci njëkk taalif ma nga cay leeral werdu werdu ci boppam nga xam ne rek luy yàgg naa fonk werd ñu waxee werd eh, ñu ngi ci jublu dog boo xam ne mbir moo xam ne dañ koo am dafa am nu mu tëdde ci jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne dafa am nu mu tëdde nga wutal ko waxtu loole lañ lañ jublu ci wird loolu nag mën naa nekk njàngoom alxuraan mën naa nekk njàngoom xasida mën naa nekk ak julli mën naa nekk ay naafila yu yu mën a doon rek. bu dee sufiyanke yi nag dañ ko gën a jagleel loo xam ne day aju ci tudd yàlla buñ ne wird du ñoom ci tariqa yi dañ ciy jublu loo xam ne dafa aju ci tudd yàlla. kon mooy xeetu tudd yàlla lay doon euh, goog dañ koy sasoo moom it di ko def ci jamono sàngam dafa fas yéene saa jamono ji jotee ñu def ko. sëriñu tariixa bi moo koy am jox ko taalibe mu bokk ci euh, jumtuwaay yi nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir di leen tarbiya loolu nag euh, sëriñ sëpp ñu ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen koy jox mu jóge ci suñu borom jaar ci moom ñu jël ko di ci tarbiya seen ñoñ. tariqa bu ne munta ñàkk ay awraadam du ma wax sax tariqa bu ne waaye jullit bu ne munta ñàkk nu muy tuddee yàlla wird moo xam ñi nekk ci tariqa moo xam ñi du nekk ci tariqa ñëpp a koy jëfandikoo baat boobu ci lislaam euh, jël say un murattabun min al ibada loolu la Sëñ Tuubaa noonu la ko Sëñ ci waxee bu ñu doon définir lan mooy wird mooy genn ci jaamu yàlla goo jël rek sax ci waxtu wu ne di ko def wala waxtu wu ne nga wutal ko heure di ko def léegi nag moo xam ci tarixa nga bokk moo xam bokkoo ci tarixa julli sax ak wird la euh, alxuraan ji ngay jàng euh, zikkar yi ngay zikkarullaahi euh, salawaatu ala nabi yi ngay def yooyu yëpp ci day dugg ci cadre wird ku ne xam na ne Serigne Touba yàlla may na ko may yu bari bokk na ci bokk na ci mooy Serigne bi nga xam ne manees na ne wird yi machaayix yeeg aqtaab yëpp jëfandikoo na ko wirdu alqaadiriya bi nga xam ne mooy ndey wirdi mooy moo gën a yàgg laa jubla wax wird jële woon ko ci sëriñ su mag a mag ñooñu jële woon ko ci Cheikh Sidil Kabir mu jaar ci Cheikh Sidil Muxtaar ba ni mu agsee Cheikh Sidil Kabir ni ko noonu jaaraat ci Cheikh Sidi Mouhamad doomam ba mu ñëwee ci Cheikh Sidiya Baba mi nga xam ne ñun moom lañ gën a xam booba moom la sëñ bi daan jëfandikoo nag ab diggante jële woon ko ci ay baayam ak i nijaayam jëfandikoo ko ay at yàgg ginnaaw bi itam bi fi sëñ Mor Anta di jógee mu jël yeneen wird yoo xam ne daf koo boolewaat ak alwirdu qadri te mooy alwirdu achadali teg ci alwirdu atijaani boole leen ak alwirdu ma alwirdu qadri di leen jëfandikoo te loolu waxal na ko boppam ci nett li boo xam ne mi ngi ci al ignaawul adim bi xabaaya awraadi cheikh na xadim bu sëñ Mat Lamin Jóob na jëlaat ko ci yeneen sëriñ eh, yu bari tëjjit ko ba ba dem ba gànnaar ci Cheikh Sidi ak ñoom ñëpp euh, yeesalaat fa euh, wirdu xaadiri bi nga xam ne moom la yoroon waaye na sax as silsila al moom sëriñ bi euh, loolu mooy ci njëlbeenam biñ doxee tuuti ak fonkam wirdam taxoon na ba mu àgg ci sax jël yeneen wirdu yu bokkut ak wirdul xaadiri yi wirdu xaadiri yi ku ne xam ne ne sëñ bi siyaar siyaare ji woon na Cheikh Babul Hamdi ahli Hamdi ibnu Talib Ajwad alxaaji ña nekkoon ca Mauritanie sëñ bi siyaare siyaare ji na leen bu ngeen xoolee sax ci way yi nga xam ne doon nañ ko génne bu yàggut rek sëñ Tuubaa di def tawassul ci mag ñooñu ci juróom-ñaari wàll yu xam naa fa mu ko defee woon sorewut ak bi mu doon siyaare ji waa idewal xaaj yooyu jëlee na seen wërdi yi ñooñu ñu ngi jële woon seen silsila ci Cheikh Mouhamad Fall ibnu Matali muy wërdi Cheikh xam ngeen ne tarixa Sadio loolu yàgg la. kenn ki bind ci ñi bind ci jaar jaari sëriñ bi. Euh, muy al alawi bind téere boobu ñuy wax an nafahatul miskiya fi siral mbakkiya nga xam ne téere bu mu bind ci jaar jaari sëriñ bi la ci jamono ji mu fi nekkee wax na ci ne sëriñ bi de euh, nee nañ ko jamono ji mu nekkee daa fonkoon wird fonkin koo xam ne ñetti xeeti wird yooyu da leen daan jëfandikoo def wird xaadir yi muy wirdam ñaaree mu def leen yoo xam ne da ko daan istimaal euh, li tabarruk mu nekk la ci moom waaye fonk gi mu ko fonkoon taxoon na ba Euh, xeet yooyu bu ci nekk da ko wutaloon kurusu boppam goo xam ne bu wirdu jotee day jël wirdu kurus gi wirdu ci al wirdul xaadir ba mu àgg mu teg ne jël gi wirdu ci at ba mu jeex mu teg ne jël bi wirdu loolu ci fonk gu gu gu kawe ak yitteem ju kawe rek ju mu amoon ci wàllu googu ci noonu la sëriñ bi wéyee di dox di dox ba euh, ni mu xëyee wax ne ubaayi'ul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa euh, ci ama ay chachine muy 1311 ci jamono ji mu nekkee Touba ñaari at laata muy dem ci géej gi ci la xëy-xëy nag bàyyi wérdi yee yëpp daal di nag ne bis tey jublu naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg moom jël alxuraan def ko muy wérdam ni ko ko suñu borom digalee ku ne xam na ne toog nag diggante it alxuraan rek mooy wérdam day mel ne awraad yëpp bàyyi woon na ko di jëfandikoo alxuraan kitaabuhul azizu saara wirdaali lenn ci wax na ko lenn ci ba baytam yi day man na sax xam naa ne melokaanam yu baree baree bari noonu la meloon alxuraan rek waaye nag alxuraan xam nga ne mooy ndey lépp moom mooy ndey lépp xam naa kay ni ngay fexe ba def ko muy sa wér di loolu moom moo jafe mooy ñëw daraja ju xaw a kawe rek xëy na ñëpp mënuñ ko am. ginnaaw bi nag ci la ko sunu borom fayee wér du boppam wi nga xam ne da ko koo digoon mu daan ko junj lu bari moom sëriñ bi ci ay mbindam daan ko wax mag ñi mu àndaloon muy wér di wi nga xam ne mooy wérdul maxuus minallaahi bi waasitati rasul sallallahu taala alayhi wa sallam atum ak sëch muy junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci gàddaay yonent bi aleyhi salaam ca Mauritanie gannaaw bañ ko fa yóbboo ci exil boobu ñu xam ñun ñëpp ci weeru koor woo ko fa jëkk a fekk guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkal muy tolloo guddig laylatul qadr jox ko wérdu boppam bii di al wérdul maaxuuzu min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa al wérdul maaxuuzu min allahi da Sëñ Tuubaa yàlla ci boppam moo ko ko jox rasulullah sallallahu alayhi wa daa jaar ci moom rek mu indil ko ko bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan bi mu koy jot booba nekkul ci li ñuy tudde ay nelaw ak yu deme noonu ci e, bëccëgu ndara kàmm niñ ko waxee la ñëw ci lu dul ay nelaw moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ko ko jëlee ko ci sunu borom tabaraka wa taala e, sëriñ Hamsatu jamono yim nekkee ak sëriñ Touba ca Mauritanie sëriñ bi daan ko sottiloo loolu ci mbindum géej gi am na benn bis bis ci ramadaan ji leen fa njëkk a fekk sëriñ bi fekk ko fa muy sottee ne ko dafa am lu ma doon sàkku ci sama borom mu digoon mu ne ci waxtu yi lañu koy jox ca loola bu agsee rek suñu lépp suñu jariñu jariñu ak àdduna ak alaaxira ma nga ca mu bëgg nga ñaanal ma ci yàlla sëriñ am sa loolu def ko jaaxle mu sàkkuwaat ci moom ne ko xanaa nga may ñu ndimbal luy tax ñu man laa ñaanal ba loolu nga jot ci loola it yàlla defee mu jot ci eh, mën naa am ci sa sawaal ci la ko Sëriñ Tuubaa njëkk a joxe pour ndigal waaye Sëriñ Amsatu nee na benn bis foofu mu toog di sott di di sotti Sëriñ tubaa xasida yi fa la ko sëriñ bi fekk jox ko mbind mu tooy xëpp eh, moo xam ne dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko ko dicté yàq satan la manaama moo ko ko dicté mu waxaat sëriñ Xamsatu ci mbindum calligraphe bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne moom la woon bindkat la woon bu mën a bind joxaat ko mbindum boppam moomu daal ko koy sottiloo mbind mu gën a leer ngir bu koy joxee muy mën a joxe koppi yooyu nga xam ne si am sa du sottiloon na ko ndax bokkut ak léegi nga xam ne boobaa mënoon nañu jël mbindum sëriñ bi rek copie ko pour ko mën ko tasaare wirdu woowu nag moom la ñuy waxal wirdul maxuus sëriñ bi fonkoon na ko lool mi ngi ko jotee ci gànnaar dëkk bu ñuy wax sarsaara ci atum 1321 nga xam ne moom la sëriñ bi di woowee am shahid naa karaman shahid naa karaman boo calculer araf yi 1321 la lay jox ci weeru koor ci la sëriñ bi jot euh, wirdu Maxuus bañ waree ba ci juróomi fan yaa ci bisub àjjuma mu jox ko taalibe yi jox leen ci ndigal soññu leen ci wax leen ci ay njëriñ yu kawe kawe ki mu ko njëkk a jox ci ñoom euh, Ahmad Ibnul Xasan bokk ci waa gànnaar euh, ab taalib bi woon moom sax ginnaaw bintaan na ci ab téere solo tuddee ko dalilu man rama dalil fii wirdi cheikhina al nga xam ne ci wirdu Maxuus rek la ciy wax njëriñ yi mu am ni ñu koy jëfandikoo ak waxtu yeeg yi demee ni ko noonu jox na ko murtani yu bari Muhammad ibnu Abdullahi al Alawi bokk na ci ñoom ko joxoon jamono yooyu ndax ku yàgg ak sëñ bi la ab taalibeem la woon nee na sëñ bi daan wax ne téye leen ko bu dër ak seen loxo daan leen wax ne yéen de seen silsila guddut man maa dox seen diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan leen wax ne ku yoroon waleen wérd moo xam maa la ko joxoon wala nga ko daan jëfandikoo rek bu fekkee mën nga ko booleeg bii loolu baax na ndax lu baax ci kaw lu baax la xam nga sëñ bi moom dafa ubbeeku woon ci wàll googu ne leen nag koo xamante ni dem nga ba mënoo ñàkk jëfandikoo yamal ci sama wérd wi kon bokk ndax kat comme sama taalibe nga nag day jëfandikoo sama wérd bi mu dikkee itam nag gannaaw weeru koor woowee bi mu jot euh, mooy bi ñu doon tuddee al xisbu rafi alladi min alniiraani xerzul mania wa li duxul jinaani azamu shafia noonu dafa sëriñ bi tuddee ci mbindam ay weer bañ demee ba ca dugg ca atum ñaar fukk junni ak ñaar wala ñetti téeméer ak ak juróom ñaar fukk ak euh, ñaar laa bëgg a wax muy baksas ca weeru gàmmo wa yonent bi aleyhi salaatu wa dikkalaat na ko ci guddi gàmmo ko joxaat ko wérdu wi ci waneen tëggiin may wax lu am solo yi luy gën a tegtale ci ne wérdu wi murid yëpp ko war a jëfandikoo gis ngeen sëñ bi bi muy doog ko jot ci wérdu wi xam ngeen sëñ bi bi muy dem bàyyi na fi ak njaboot ay rakkam benn magam bu mu fonkoon te defoon ko kilifa muy Maam Mor Jaara borom saam ak i bokk wérdu bi mu ci jotee li mu njëkk def mooy bind ko bind mu njëkk yónnee ko magam ji fi nekkoon Mamoor Jaara xam nga loolu li muy tegtale bari na yiw yi doog a ñëw bala ko tàmbalee jox kenn ne ko jox magam ji nga xam ne li gën a jafe fees del di borom xam-xam boobu ba noppi wëlbatikuwaat nekk jaayanteeg moom moom kon yónnee woon nag ko te du mënta ñëw boobu Mamoor Jaara it xam ne mage na waaye da ko yónnee wérdu bi. du Maxuus mën nañ cee tudd ñett yoo xam ne bokkuñu waaye yëpp a wér amu ci benn bu gën a wér moroom jiit bi sëriñ bi njëkk jot mooy alxafif boobu moom la jot ci weeru koor yi moo gën a tasaaroo sax xafif lañ koy woowee tur wi dëgg nag mooy alxisbul alxisbul rafia allazi min an niraani xerzun mania wali duxulil jinaani xayru shafia loolu mooy tur wi dëgg-dëgg waaye xafif lañ koy woowee mooy bi njëkk a génn te moo gën a tasaaroo mooloon nañ ko ci nekk sëriñ bi Cheikh Khadim ci boppam tasaare ko moolu woon na ko bitim réew tasaare ko ci taalibe yi Sëriñ Saalix radiyallahu anhu te moolu woon na ko fi bi ñu demee ba ci weeru gàmm bi ci la sëriñ bi jot ñaareelu tëggin bi mooy bi ñuy woowee alkaamil alwidul maxuus min allah bi wasiti rasulihi sallallahu alayhi wa sallam boobu moo gën a gudd tuuti xafif moom it jamono Sëñ Abdu Lahat Sëñ Abdu Lahat na ko ba tasaare ko am na ba léegi tasaaro na bëri nañu ko jëfandikoo am nag beneen boo xam ne moom la ñuy woo alxaatim alwirdul xaatim almaxuusu min allahi bi rasulihi alxaatim wala bi rasulihi alxaatim boobu it moo gën a gàtt ñett yee moom sëñ Mat Lamin Jóob Dagana sax am na fu muy bind di wax ne boobu nag sëriñ bi ñu ëppoon ñu ko daan jox mooy ñi nga xam ne ñoo daan nekk daan daan daan ne ci ay boppam ñu ko daan liggéey liggéey boppam daal kon wird bi am na ñetti xeet yooyu am na xafiif am na kaamil am na xaatim waaye ñoom ñëpp nag wirdu Maaxuus dañ leen di woowee ñoom ñëpp yu wér lañ kon Cheikh ab xafiif boobu euh, ci sarsaar la ko jële woon am na beneen seexa bu siiw mooy alkaamil ba tey ba tey ci murtani la ko jële rek waaye day mal ne ci at mi topp ci at mi la ko jël moo tax kon dañuy jàpp ne du soreek ci jamono yi nga xamante ni ma nga jaraariya leer na loolu ci waxi sëñ bi boo ko seetloo ne mën naa tekki loolu am na fu mu waxee ataaniyal xayru min rabbi bi takraari laa si siyama inda biiril xayri jaraar yàlla jox na ma yiw bu bari surtout bi mu nekkee jaraariya bi ma nekkee jaraariya yiw woowu wala suulu ci beneen riwaay suulu mooy li ma doon laaj mënees na koo tekkee mooy wérdu wi nga xam ne bëggoon na ko joxoon nañ ko ko ci euh, sarsara wëlbati ko eh, joxaat ko ko ci beneen seexe boobu ci bi nga xamante ni moo mi ngi jaraadiyee. ñaar yu jëkk yi muy xafif ak kaamil bu ci ne ci gëstu dem nañ ba gis ne amaat nañ ñoom it ay tëggi nag ci seen biir yu wuute waaye foofu li ci mat a leeral rek mooy tëggin yooyu li mu wuute wuute liñ ci jot a xamagun ba fii liñ ci xamagun yëpp yu wér la yoo xam ne mu ngi jóge ci sëriñ bi radiyallahu anhu ci ay càllale yu wér yu ñu xam kon loolu day wane na kon. wuuteeg tëggiin yi amul jenn jeexit ci war a sikk sàkkaloo nit ndax yëpp ci sëriñ bi la joge te li feeg mu ngi jóge ci sëriñ bi rek kon yëpp yu wér la eh, bu ci nit jëfandikoo moom mu jëfandikoo ba jëlee si ñooy am benn atte kon moo tax ñett yooyu amul wuute ci am na wuute ci seen biir ci ay tur nag ay ay tëggiin noonu ñu ko waxee waaye ci jëfandikoo gi moom mën naa bañ a am wuute ku ci jël benn rek di ko jëfandikoo bu mu ci mën a doon booba maaxuus la benn la rek ci moom sëriñ Tuubaa nag dafa doon moom it ku aji dondu yonent bi alayhi salaatu wasalaam zahiran wa baatinan <clears throat> moo tax it ci dondu gi mu dondu yonent salaam wirdam tamit noonu la doonee sirru min asaari nabi alayhi salaatu wasalaam ni alxuraan dajale lépp moom it sirru wirdam doon dafa noonu la dajale wirdu yëpp sëriñ Basiir wax na ci euh, xasida googu mu def ci wirdul maaxuus nee na wir euh, wirdu ñi tarixa yi fi jiitu woon yëpp booy xool sirru laaya mu indi ci tarixa nangam nee na xasbunallahu ni'mal wakiil mooy seen sirru tarixa sàngam mu indi seen sirru daa ne loolu booy xool tarixa bi wirdu bi mën naa gudd lool waaye sirru bi ci benn laaya wii la nekk wala benn ci turu yàlla yi ci nekk booy xool wirdu euh, maaxuus nag sirru yooyu nekk ci tariqa yi da ko ciy gis ci biiram boo xoolee tariqa qadiriya seen sirru da nga ko fa fekk tariqa saazariya seen sirru da nga ko fekk tariqa tijaaniya seen sirru da ko fekk sëñ Basiru nag yooyu yëpp la dajale ba noppi nag fa zaada fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa bi muhkamil kitaabi neemal murtaqa dafa dajale sirru yooyu yëpp ci biir wirdu yu noppi yokkaat ci nag sirru alkuraan ba noppi yéeg nag muy yore def ci sirru alquran te bu dee silsilatul baraka ci nga xam ne dañ koy xool bu baax ci wàllu tasawuf mooy bi gën a jege ndax boo xoolee li ma tënk kus neew rek ci tarixa yi ni mu def ba agsi bi da nga tudd ay ñeent ba juróomi nit li ëpp ci ñun ñii buñ dee wax werd wi ci kiñ ko jëlee benn nit ngay tudd wala ñaar maximum mu àgg ci sëriñ bi xam fi ne bu ma tuddoon ne ci sama waajur moo ma ko jox mu tudd daan sëñ Amsatu moo ko jox mi nga xam ne fekk na bis ba nga xam ne werdu Maxuus mi ngi wàcc mi ngi agsi ci Serigne Touba ñu koy jox bis boobu fa la ko fekk moom ci jotaay ba ci Serigne Touba ko jox direct kon li ñuy tuddee silsilatul baraka bi nga xam ne dafa war a jaaree ci wàllu jël ci ndigal ci werdu murit dafa mel ne ci la gën a gaawe ci la gën a gàtte euh, gannaaw bi ko sëriñ bi jotee it nag soññ na ci taalibe yi lool soññ na leen ci waxuma sax soññ na leen ci waaye digal na leen ko la ñuy wax digal na ko taalibe yëpp digal loolu feeñ na ci ay barab bokk na ci mu jëkk a feeñ texte bi nga xam ne moom la sëriñ bi bindoon joxoon ko taalibe yi ca kaw texte ba dafa am lu mu ci bindoon ñu jàng ko ci arab doog ko firi ci wolof ngir mu gën a leer ci bopp ñi koy seetaan ñëpp sëriñ bi dafa wax ne hada huwa al wirdu alladi axadahu abdullahi wa xadimu rasulihi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barak ahmad ibnu muhammad ibni habibillah asamahu allahu taala wa asaadahu aalaah min rabbihi tabaraka wa taala bi wasitati rasulihi alayhi bi alihi wa sahbihi salatu wasalaam wastaamalahu wa amara almutaalliqina walmutaalliqaati bi adyalihi li wajhi llahi taala alkarim bi isticmaalihi muddata muksihim wa muksihinna fi dunya bila tafritin anhu abadan loolu ku dem ci annafaxatu miskiya bu cheikh Mouhamed Abdullah ibnu Ubayd Rahman al Alawi da nga ko fekk indi na fa teg si boobu bépp sëriñ Mad Lamin Jóob Dagana itam ku dem ci Agnaawul Adim da nga ko fa fekk indiwaat na ko ca amoon na it ba beneen nusxa maaxuus bu mu doon tasaare ci jamono boo xam ne dafa dajale woon xafiif ak euh, kaamil ak xaatim bindoon ko ci mbindin yi machine à amoon ci jamono jooju doon ko tasaare ci jamono Sëriñ Fall la woon booba ku ca dem da ko ca fekk moom itam texte bi kon mooy texte bu wér wér la bu leer a leer sëriñ bi dafa wax ne lii mooy wérdu wi nga xam ne jaamu bi yàlla bi di liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële na ko ci boroomam muy ahmad doomi muhammad ibnu habibullah boppam lay wax jële na ko ci boroomam mu jaare ci yonent bi alayhi salatu wasalaam dikk ci moom mu di ko jëfandikoo moom sëriñ bi ba noppi digal itam mboolem ñi aju ci moom ci ay góor ak i jigéen al mutaalliqiin wal mutaalliqaat la wax ñi aju ci moom ñëpp ci ay góor ak i jigéen mu digal leen ñu di ko jëfandikoo te yàlla ñi aju ci moom ñëpp te yàlla tax góor ak jigéen mu digal leen ñu di ko jëfandikoo diirub ñuy nekk ci àdduna mooy seen giirub dund te bañ cee sàggan benn yoon ba faw nag. wér du woowu nag am na solo lool waras na ko fonk ñaari yoon lañ koy jëfandikoo muy suba ak ngoon am nay waxtu waxtu yuñ ko baaxoo def ak waxtu yoo xamante ni mooy waxtu muxtaar bi ak waxtu daruur ji waaye li ñuy wax rek mooy li am ci wér du yëpp mooy ku ko kum faat mën nga koo fay. ni nga xamee ni it euh, julli dafa am waxtu waxtu julli maanaam bu doon li tàmbalee fii la ba fii dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy bi gën boobu la ñuy woowee muxtaar xaaj bi ci topp moom la ñuy woowee daruri maanaam bi ñuy woowee muxtaar moom lañ gën a taamu kon ku amul ngant ci la war a def julli bu dee ko am ngant nag ñu may ko mu def ko ci waxtu wa nga xam ne mooy mujj ndool yi daa am ci wird bi wird wi dafa am waxtu wuñ ci gën a taamu ak weneen nga xam ne mooy ku am ngant bu dee ngoon gi muxtaar mi ngi tàmbalee ci bu tàkkusaan jotee fu ñu noddee tàkkusaan rek muxtaar mi tàmbalee na foofu ba ba ñuy noddu gee diggante boobu yëpp ku fi wérd maxuus ci ngoon gi yaa ngi ko wérd ci waxtu wi gën muy muxtaar mi kon ki ko def ginnaaw timis ak ki ko def ginnaaw tàkkusaan ñoom ñëpp ñu ngi ci biir waxtu wi daruuri yi bu ngoon gi mi ngi tàmbalee ci bu gee jotee ba ba njël di jot ba ba njël di jot loolu lépp ci daruuri yi wérdu ngoon gi la bokk waaye su njël xasee jot nag te dafa ko sa wérdu ngoon moom xam ne waxtu wa jeex na kon da koy fay waaye dootu nekk jooxe waaye fay lay doon mu des waxtu suba wi moom mi ngi tàmbalee bu jël jotee day wéy di wéy di wéy ba jant bi fenk bu jant bi fenkee loolu mooy muxtaar mi moom lañ gën a taamu bu jant xasee fenk nag foofu la daruri bi di tàmbalee mooy ko amoon ngànt mu tàmbalee fi jant bi fenkee nag ba ba zawal di jot zawal mooy fu jant bi demee ba àgg ci digg bi noonu ba nga ba war a tàmbalee incliné tuuti rek euh, maanaam buñ sukkandikoo ci li sëñ bàkk bi sa jàngale mën nañ ne 30 minutes avant ñu noddu tisbaar rek ndax bu zawal jotee danañ ci teg ay 30 minutes doog a noddu tisbaar kon bu ñu ba tisbaar di bëgg a jot rek foofu la daroor suba di jeexee nga xam ne ku ko wérdu ba waxtu woowu nag da koy fay moom waaye waxtu woowu moom jeex na ñu fàttali ne wérdu nag lu ñuy fay la moom bu la rëccee da koy fay ndax day taxaw ci buntum nazir rek te képp ku nazir ne da ngay def lu baax da nga da nga koy fay euh, kon loolu it mat naa jàpp ci wàllu waxtu wi euh, bu ko nit ki dee jëfandikoo it léeg-léeg fàtte mën na koy gaar wala ay ngànt boobaa itam wérdu wi dañoo wax ne dañ koy fay dañoo xam ne ak wérdu ko salaa wérdu mook julli ñoo bokkaate li nga xam ne julli boo ci lobal danga ko fay ni noonu itam wérdu itam des koy fay war ngaa wérdu ci suba gi wérdu woo ba ngoon jot faaw balaa ngaa wérdu ngoon da ngay wérdu wérdu suba gi doog wérdu wérdu ngoon bisub démb bi lépp wérdu wenn waxtu du suba du ngoon ëllëg boo bëggee wérd faw da ngay wérd ñaari waxtu yu démb ya doog a wérd tey kon faw dañ koy fay ki ko dul fay daal ñii rek la muy ñaar kenn ki mooy koo xam ne la taxoon mu faat ko mooy da doon sàkk lum dunde moo ko tax faat koo xam ne wut lum dunde nekk ci liggéey bu liggéeyu boo xam ne ci lay amee la muy dunde moo tax a faat wérdu yi kooku moom dañoo wax ne booba dootu ko fay bu ko faatee ba waxtu wi jàll dootu ko fay keneen ki itam mooy koo xam ne daf cee amee bor bu ëpp bu mat juróom-ñaar jëm kaw bu mat juróom-ñaari waxtu jëm kaw boobaa da koy bàyyi dootu ko fay day tàmbaliwaat rek fa mu toll continuer ñaar ñooñu kon ñooy ñi nga xamante ne bii na dañoo wax ne duñ duñ fay werdu yi ku dul ñoom nag euh, da ngay fay lu la ci rëcc da nga koy fay ñaata façon werd maaxuus moo am yan jagle ak yan njariñ la werd Mahfouz am ndax jël werd daa am at yuñ ko war a jëlee wala déet ndax jigéen sañ naa jël werd wala déet nan la ñuy jëlee werd lan mooy charte werd Mahfouz képp ku ko bëgg a jël te di murit sañ koo jël te war nga koo jëlit ndax sëriñ bi daana ko jëfandikoo te ñëpp la ko digal nag ñëpp la ko digal murit yëpp la ko digal werd yu mënta ñàkk ci murit nit bu ko jëfandikoo nag nga dem wuti ko jële ko ci wuti ko jëli ko ci ndigal isnul am am na ci mooy loo xam ne mën nga koo jëfandikoo ngir tabarruk ngir barkeeloo ko rek ak am tiyaaba loolu moom sëñ Tuubaa jox na ko ñëpp surtout ku dib taalibeem waaye nag wirdi masaayix yi wirdi tarixa yi ku ne xam ne ne ndigal mënu ca ñàkk tart yi nga xam ne itam mooy yi mënta ñàkk ci wirdo yi waaye yi ci jiitu daal nga xam ne moom moo mat di fàttali nit ñi ndax mooy bunt bi nga xam ne moom moom mooy li munta munta munta ñàkk bu ci nit ki tàmbalee nag doog a nag di def yi des ndànk-ndànk par étape yooya ba ca jiitu mooy jële ko ci ndigal jële ko ci ndigal mooy di jiitu am ndigal ci jëfandikoo ko ndax yooyu ma waxoon léegi ci gannaaw ñaareel bi mooy ka ngay jële ndigal li doon ko am ndigal ci jëfandikoo ko ak joxe ko ni ma ko waxoon léegi moom itam ci gannaaw waaye nag mu matal leeral bu baax foofu it ne bu ñuy wax ne da koy am ci ndigal it doonul ne day ñëw fekk ma nii rek mu ne ma wirdu Maaxuus laa jël Mbàkke laa sant ma ne ko jëlal sëñ nga ko teel déedéet déedéet ki sëñ Mbàkke Buso di wax ak ki sëñ Tuubaa di wax naan moo la ci jox ndigal mooy ku am ndigalul joxe ko ñaari ndigal la yu bokkut man mën na maa am ndigalul jëfee Maaxuus loolu isnu istimaal la waaye nag faaw ma am isnu ita mooy faaw ma am ndigalul sañ a joxe wirdu wi ki sa ki la sañ a jox wirdu wi mooy koo xam ne am na ndigalul joxe ko sëñ Tuubaa am na fu ñu ko ko laajee ci mañumaa bi mu ne euh, képp ku ko jël te jëlee ko ci ku ci amul ndigal euh, te di ko def li ngay def baax na ndax jaamu yàlla ndax wirdu yi moom ay ay alxuraan la ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom kon yaa ngi def lu baax daan ne te wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yaa ngi def lu baax waaye nag njëriñ lañ ciy séntu dëgg dëgg dëgg nit mënu koo am lu dul mu jëlee ko ci koo xam ne dafa am ndigalul joxe ko kon loolu na ci murid ñu xam ne képp ku ko bëgg a jël faaw nga dem ci ku am ndigalul joxe ko mu doog la koo jox. ñetteel bi nag mooy di ko jëfandikoo ci waxtu yuñ ko waxtu yuñ ko yuñ ko limiteel waxtu yuñ ko jox waxtu yu ko sëriñ bi tegal kon ñetti sart yooyu mooy yi ci munta ñàkk yoo xam ne mooy yi jiitu nit ki war koy def bu noppee nag yeneen sart yi ci des moom mu di ca tàmbali kar eh, kem kàttanam ndànk-ndànk sëriñ Saalixu radiyallahu anhu wax nañ ne am na ku ñëwoon ci moom di ko wax lu mel noonu ne ko man de Mbàkke bëgg na maa jël wér du waaye sama jafe-jafe mooy sart yi mooy xaw a diis ci man sëriñ bi muuñ daan na ko da ngay da nga koy jël te sart yi la nga ca man nga def ko la nga ci mënoon nga bàyyi ko mooy da koy def par ndànk-ndànk am na sax lu day waar loo xam ne ñu koy jëfandikoo ñu bari seetlu nañ ko mooy ci njëlbeen léeg-léeg mën naa xaw a diis ci yow surtout boo dee ko sàggan ko mel na man nga xam ne farlu woo woon lu ko jiitu waaye dangay gis ne da ngay gis ne day mel ne sart yi day tàmbali ñëw ndànk-ndànk day mel ne moo day wootante ci seen biir dangay ngay dox ab jiir bu gàtt jekk-jekk gis ne daanaka li ëpp charte yi matal nga ko yëpp. charte yi nga xam ne moo am ci wirdu Maxuus charte yi euh, daf ci am ñaari charte dafa yoo xam ne yu munta ñàkk ci wirdu wi la ay shurutu sihha la yoo xam ne bu amut wirdu wi du mën a baax am yeneen yoo xam ne ay shurutu kamal la maanaam yooyu day ñëw rek mottali maanaam bu amee daal mu gën a baax donte bu amut du tax wirdu bi yàqu. moom ay charte la ci yoo xam ni ñu bari jàpp nañ ne suratu sixa la waaye euh, man li ma gis li ma ci xaw a jàpp mooy xëy na suratu kamal mën na ko doon suratu kamal ndax mooy ndax ñàkk gee def ñàkk bàyyi ci benn fi ne yokkul wérdu bi fi ne sart yi def gi moom moo gën da koy gën a matal da koy gën a yokk barke loo ko gën a euh, taqoo itam loo ko gën a matale loo ko gën a def ni ko sëñ bi waxee itam day tax mu maanaam barke bi ci lay ëppee njariñ li itam ak jariñu ci itam ci la ci la gën a gaawe waaye itam masalan bàyyi ci benn ci ci des nii taxul wërdu wi yàqu laa bëgg a wax. teggin yi comme teggin yi am ci wërdu yëpp rek boo mënee toog jublu la moo gën boo nekkee di dox wala yooyu baax na waaye na nga moytandiku nekk di wax buñ nee la bul wax ak yooyu nag ci lu dul daruura mooy ngay in xaas xettaliku nar a faatu sa waajur wala wala sa sëriñ masalan maanaam daruura lu mënta ñàkk. lu bu mënta ñàkk lu mel noonu nag waaye nag wird e fara kii yi e wird yi nga xam ne mënta ñàkk ngeen xam ne kenn du wax ci biir e buñ ne kenn du wax ci biir nag kenn du lekk kenn du nelaw ak kenn def loolu ci biir mënta ñàkk na ngay jàng alxuraan bis bu set ni nga ko mënee na ngay julli julli mbooloo bu fekkee góor nga julli mbooloo ak yu mel noonu di la mooy daal mooy tandiku bàkkaar yëpp it nag surtout nag li nga xamante ni mooy bàkkaar yu mag yi topp nit ñu baax ñi surtout bëgg wàll yi fuñ mën a nekk ca jàng sa diine ba xam ko bu baax a baax loolu mooy li nga xamante ni mooy mënta ñàkk. booy werd bokk na ci surut yi ñu bëgg ngay eh, teewlu def im eh, dem def tëbbaliku ci sëriñ bi nga xam ne moo la ko jox ndax silsilatul baraka bi booy teewlu sëriñ bi ne waxtu wi ma koy def jublu penku sëriñ bi mi ngi jataay bii ma koy defee eh, silsilatul baraka bi day gën a gaaw ca fi mu ne booy werd amul lenn luñ ciy ragal dama la ci joxe exemple benn exemple bu ndaw rek. Cheikh Saalix mi nga xam ne ñëpp xamoon na ni mu ko ni mu ko ko fonke yaakaar naa ne bu dee àdduna nit ki ragal ku ko ëppoon àdduna milliardaire bu ko fonk toon bu ko faaliwutoon la ay milliards la wàcc ci ginnaaw boo ñëwee masaan fekk ay milliards ay nekk ci ay ranam sëriñ si koy jëfandikoo fii yëpp del seetlu ci ñoom loolu bu dee àdduna moom toujours sutura sa àdduna yàlla da leen koy jox ak gudd fan day am ci ñoom lépp loo xam ne yaa ngi koy sàkku ca mooy lenn li nga xam ne nag ni ñu fonki xasida di ko di ko jàng ca mënta ñàkk ci ñun nu ko raw lañ ndax lee moom sëñ bi dañu koo digal moom dañu ko digal ak ay textes yu leer ku fas yéene jël wérdu yi day góor góorlu ci matal sart yi waaye du wax rek ne tey tey tey tey mënumaa matal sart kon damay bàyyi ba man koo matal door a tàmbulee jëfandikoo wérdu yi na ko tàmbuli rek tey fës yéene matal sart yi di ci góorgóorlu kon bu matalut lépp ci saa séet lam ca mën a daal matal na ko daal di matal la ca des góor góor lu ngeen matal ko tey jëfandikoo wird wi nag jëfandikoo gi mu koy jëfandikoo sax man na ko dimbule ci mu gaaw a mën a matal sart yi ci des li ñaan ñi di faral di wax itam nga gis koo xam ne danaan la euh, bu ko jël ndax boo ko jëlee léegi wala nangam mënoo matale sart yi wala euh, daa diis mën na laa indil ay problème wala nangam nangam loolu itam ñu xam ne du lu sax du lu sax werdu yu moom jëfandikoo ko ci anam yu normal yi ñu wax ku ko def njariñ kese nga ci gis waaye lenn lor amu ci foofu dinaa fa wax ne ñu bàyyi xel ne werdu yu tariqa nga xam ne mooy werdu yu nit yi ñuy jox seen taalibe ñu di ko bokk nga xam ne amut ak jagoo ñëpp koy bokk ndax tariqa boo dem dana am loolu am na ci yoonu murid am na ci tariqa yëpp day am werdu woo xam ne moom la ñëpp bokk am yeneen werdu yoo xam ne nag day amuk jagoo am na kook bu ko bëggoon jël dañ naan ko yow waroo koo jël ndax yoyoo woo ko waaye wur yi ñëpp bokk day doon lool bu ma ko doon misaal damay wax ne dañuy doon day doon luñ sécuriser loo xam ne nit daanaka xaw ca mën a loru wala bokk jëfandikoo yin wu jadd yoon mooy tax mu loru ci waaye bu dul loolu du ci mën a loru mukk lu mel ne nii am ci alxuraanul karim rek alxuraan daanaka euh, nit loru ci lu jafe-jafe la jafe-jafe jafe-jafe man ngay xëy di jàng ab kamil bu set du tax mu wàññi la dara ngay xëy di jàng ñaar fukki isib ngay xëy di jàng juróom isib day gën di baax ci waaye doo gis mu indi la benn jafe loolu itam lu mel noonu mooy li am ci ci wérdi yi nga xam ne moom la borom tarixe di yorta di ko jox seen njaboot yëpp yëpp yëpp yëpp wirdu Maaxuus moom ñi koy jëfandikoo ñëpp xam na njëriñ li ci nekk ak kawe gu mu kawe ak ni ko sëriñ xam ne xamewuñu ko noonu loolu nag ci pexe seytaane bokk te bunt bi seytaane di jaaree bokk na ci charte yi mooy ñu bari fi mu ñu ne la man mënuma koo jëfandikoo ndax charte yi dafa diis te ñi ëpp ci ñi lay wax loolu sax fi ne boo leen waxoon charte yi yan la duñ la ko xamuñu ko maanaam dañ ko dégg dañ dañ dañ ko dañ leen ko dañ ko foog noonu rek foog ne lu diis la wird Màhuuz daanaka mën naa ne la amuti charte yi ci sëriñ bi defi charte yëpp sëriñ bi da ko cay def ngir fonk diine rek waaye mbir la yoo xam ne bu wird Màhuuz amutoo nit jullit bi moom yooyu da koo war Sëriñ Tuubaa wax na ne kuy jëfandikoo wird wi seytaan du ko jege seytaan da ko ragal ma seytaane ñemewul wird bi ak kii koy jëfandikoo loolu nag dinaay wax ne xëy na moo tax seytaane def fi pexe ba kenn ñemewul wird wi loolu am na ñu bari dañ la wax ne sart yeeg daa xaw a diis dañ koy xaw a ragal te ragal googu ñu ci ragal daanaka boo seetloo doo ko ci gis ndax wirdu bi moom ci 30 minutes mën nga ko ci def wala gën jaay ak 40 minutes. ca diir siñ koy jàng li ma ci gën a yéem ba tax sax nit ñi fonk ñu ko mooy diir diir siñ koy jëfandikoo dafa nekk diir su gàtt fi ne diir bi ngay jàngee mu waaye boobu mu xaddimaat mën nga ci werd mu jeex diir bi ngay jàngee eh, jaaliba mën nga ci werd ñaari yoon. ci ki nga xam ne dafa dafa mu ngi werd kii loo yeex yeex ci werd kii doog a tàmbali ala kulli xaal mënoo fexe fexe ba werd wi gën a gudd moom diir bi ngay jàngi jaali bi kon lan mooy li xew ba tax nit ñi jàpp ne werd wi duñ ko mënuñu ko def. xaatim bi sëriñ bi ñi ëppoon ñu ko daan jox mooy ñu nekkoon ci ay yittey boppam xëy na ñooñu bëri woon na ay xidma yu leen di war. Euh, yu ñu daan defal sëriñ bi ba tax jot gi mën naa bari bañ a bari lool loolu buñ ci mënees na ci déggee ne it jamono ji ñu nekk Euh, murit bi nga xam ne xëy na murit yi seen i yitte mën naa bañ a tolloo am na koo xam ne am na jotug toog def kaamil ba mu àgg ndax kaamil moo gën a gudd am koo xam ne xëy na liggéey bi mu nekk wala yooyu mayu ko loolu boobaa mën naa jël xafif bi nga xam ne moo yam keneen ku nekk bitim réew wala mu la ci yitte yu xat lool moom it mën naa jël xaatim ndax ñoom ñett ñëpp yam te yëpp ci suñ borom la jógee jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu yit ki nga xam ne moo koy jël bu ñëwee cib sëriñam mën na koo wax euh, dëgg-dëggal fa muy dund ak li muy dund loolu dina tax ba sëriñ bi xool bi gën a méngoog moom mu jox ko ko euh, ndax yëpp a baax te yëpp a bokk njëriñ bi ñuy jëriñ te yëpp rek li ko tax a jóg mooy jural taalibe bi saada su daare ni incha allah. te werdu yi sart yi ñu ci waxit nit ku ko ñàkk man moom yaakaar naa du am bu fekkee ne ak ngant da dal loolu tul du caagi ne da nga mul sart bi ngant la ngant la du doonul luy sax day dalay gaar bu ja jeexee jeex na nga continuer waat ci sa wird waaye wax ne dama munta matale sart yi moom jàpp naa ne du aw lay du nit waru ko wax ndax bu fekkoon ne nit da dul mën a matale sart yi wird tax muy ñëw wird yi lan mooy sart yi bàyyi eh, tuub bàyyi eh, bakkaar yu mag yi taqoo gaa yu baax yi jàng alquran di ko def ci ay waxtu eh, yu ñu wax loolu jullit bu ne war na ko man bu dee nag da am ngant ci jëfandikoo sart bi teewut na jël nga sart bi yaa ngi koy jëfandikoo ngant bi bu mu la tee bàyyi wird bi na nga def wird bi te sellal te ñaan yàlla mu dimbale la ba ngant loola dañ nga wéy comme ci lislaam ku doon julli euh, te am ndox da ngay da ngay dem euh, tiim tiim dem euh, àggali si julli ngant la ngant la taxut nga bàyyi julli kon ngant teewut tax nga war a bàyyi wird wi ba tey itam euh, biir tëggin yooyu am xafif kaamil xaatim yooyu moo xam léegi bu ko nikki yoroon bu ci nikki yoroon di ko jëfandikoo ba ci yàgg mu bëgg koo bàyyi jëm ci beneen ngir yëlla ju mën a doon xaj na euh, daa xat ci waxtoom wala yu mel noonu mu bëgg a jël beneen bu gën a woyof ngir waxtoom loolu itam boobaa li ñuy wax mooy bu nikki xasee ba am ndigalul jëfandikoo ko rek ñett yépp ñooy am ci moom bu ko ci neex mën na ko jël jëfandikoo ko da nga doon jëfandikoo kaamil misaal kaamil xaw naa gudd ci ku sawla mi yeex misaal nga gis ne yow li nga koy jëfandikoo day jël lu mat diiru une de temps wala lu ko jege nga gis ne loolu metti na ci sa temps nga bëgg lu gën a woyof tuuti nga bëgg a jël xaatim nga xam ne xaj na mën nga koo def ci vingt minutes wala sax lu ko yées surtout bu dee ku làmmiñam yéexut am na ñoo xam ne mën nañ ko def ci quinze minutes sax boobaa boobaa dañ naan la sañ ngaa tuxu bàyyi kaamil bi ñëw jël xafif wala nga bàyyi xafifa kaamil yëpp ñëw jël xaatim mu gën a gàtt gën a woyof xaatim moom bu gàtt la wax na dix minutes sax mënees na ko ca def kon loolu itam ñu xam ne bunt la bu ubbeeku boo xam ne boo xasee ba dugg ci cadre rek am ndigalul jëfandikoo ñett yooyu yëpp bu la ci neex mën ngaa bàyyi ba ci des jëfandikoo ba ci des xanaa liñ jur sañ rek mooy foye daal liñ jur sañ foye foye tam mooy di di jàllandi di jàllan jàllantu rek nag maanaam tey nga jël bee ëllëg nga bàyyi ko jël bee ëllëg nga bàyyi ko jël bee loolu moom duñ ko maye ndax li ñu maye mooy bii dem nga ba xam ne arrangé la ci sa waxtu wala yooyu nga bàyyi ko toxu jël bee dafa fas yéene sax loolu moom mooy li ñuy mooy li ñu maye. dari nag moom ci boppam moom werd bi léeg-léeg xam naa danga nga gis ñu koy jël euh, bàyyiwaat ko ba mu yàggaat ñu mënaat ko loolu jaaxaloon na ma lool ma laaj ko sëñ baara mu sëñ abibu sëñ baara waxee mu jàngale fii mu ne ma sëñ abibu de nee sëñ tubaa daana wax ne lu baax foo koy defe ba mu yàgg nga bàyyi ko boo ko bàyyee dangay xool ba xam ndax bi nga ko bàyyee mi ngi nekk sa xol nga di ko bëgg ko ba tey ngi nekk sa nga di ko bëgg ba bu fekkee mi ngi nekk sa xol nga di ko bëgg nee na loola danga ko doon euh, jëfandikoo te te da nga ko doon jëfandikoo ku yul ñu jël ko di leen ko defaraatal maanaam da nga ko doon jëfandikoo ñu jël ko di leen ko defaraatal su fekkee nag danga koo bàyyi. te bëggatoo ko maanaam nekkatu ci sa xel da nga ko doon yàq ñu nangu ko <laughs> loolu sew sew bu kii la bii mooy da nga ko doon xam naa na nga ko doon defee kii ñu jël ko di la ko defaraatal waaw nga xam ne buñ la ko joxaatee mu mën mën naa bañ a moom da ko doon yàq ñu nangu ko moo tax loolu itam jox ko yitte murid jàpp nu ne ñàkk koo jëfandikoo dana tey doon ab murit waaye nag jëfandikoo ko moom baax na lool ci murit ab taalibe baax na ci moom lool muy jëfandikoo al wirdul maxuus te sàmmoon teg sart ya ya ca sëñ ba wax lii tax mu mën a am nag mooy ñu koy xamal nit ñi di leen ko xamal di leen ci soññ di leen xamal ngëneel yi ci nekk di leen ci joxe leen jox royukaay itam mooy kilifa yi di ko jëfandikoo di ko joxe wérde nag fii ci sunu aadamam mel na ne fuñ ko waxee rek day am ñu ko féetewoo walif ñeneen ñi muy loo xam ne day mel ne ci ay at wala ci doon góor wala jigéen ci lañ koy tënk waaye loolu nag di wuuteeg lool li sëriñ bi wax ci jël werd werd wi rawat na ci ñun ndaw ñi waxtu yu ko suñuy maam daan jot ci ñu toppoon Sëriñ Tuubaa àgguñu woon ci âge bi ñu àgg ñun woon ci âge bi ñu àgg na ndaw yi bàyyi xel ne ñi ko Sëriñ Tuubaa doon jox waxtu yi mu leen ko doon joxe ay nit yi went nangam lañ amoon ci at jàpp 30 ans néewaa nga gis ci koo xam ne amoon na 40 ans booba. bu dee soxna it ñoom mën nañ koy def saa su ne mën nañ koy def saa su ne jamono ju nekk rek mën nañ koy def. Euh, amul am gant ak ñàkk am gànt ñu xam ne it ñoom it ci liggéey bi la ñu bokk maanaam ñu xam ne euh, ni ñu ko digalee góor ñi it noonu lañ leen ko digalee ñoom it euh, te am nañ ci it wàll gu rëy guñ ci war a jëfandikoo fenn rek la gën a woyofee ci ñoom mooy xëy na julli ji ci mbooloo yooyu ñoom taamuñ ko ci ñoom safaan bi sax lañ taamu ci ñoom waaye sëriñ bi ba mu koy digle sax wax muy wax mutaalliqiina da caa teg mutaalliqaat ba mu ne muksihim si ne na fu mu tuddee góor ñi rek day tudd jigéen ñi kon jigéen fu ñu mën a nekk war nañoo am benn ci wirdu maxuus yi bu mu ci mën a doon nañ xool rek bañ ci mën a jëfandikoo ñu jël ko ci ku ko mën a joxe te ji ko jëfandikoo te fonk ko te xam ne ku ko ci jëfandikoo it da koy yokk rek incha allahu taala wirdu wi moom ku ko jëlagul mooy wax ci waaye jël ko bàyyi ko moom néewaa na lu muy am ndax njariñ li ci nekk tax doomu aadama daa bëgg njëriñ te wirdu wi moom njëriñ li daa jege daa barkeel day loo xam ne dañ koo tànn moo tax ku ko jëfandikoo rek ku ko tàmbali dana ko dana ko wéyal moo tax daal ñu ngi ci soññ ñëpp rawatina mbokk jigéen ñi ñu xam ne eh, wala nisaay nasibun eh, fil jigéen ñi am nañu wàll nag ci mbir mi. léegi ni jamono bindoo rek moo tax ñu bare bare dañuy dem ba def jigéen ñi eh, bokk waruñu ca bokk waaye fi ne ñoo góor ñoo yam ci lépp <coughs> ndax mu taxalikaat yooyu mu wax ñu ko waxee léegi dugal na leen. ñaareel ba itam xaside yi nga gis ñoom dañ ko daan jàng ci jamonoy sëñ bi sëñ bi di ko di ko déglu waaye nag waa kër gi ñi ci biir kër gi lay doon soxna Awa Diop euh, radiyallahu euh, mi ngi nekkoon foofu Daaru Xudoos defe naa da nga ko war a xam mi ngi faatoo yàggul dëkkoon Tiwaawan mas naa ko ci waxtaan ak moom waaye mi ngi wax boobu ñoom euh, bàjjanam yi nekkoon foofu moom bàjjanam la nekkoon foofu soxna Aminta Diop waaye nee na ma dañ daan jàng xaside ci guddi gi sëñ bi di ko déglu nee na ma rib xim ti yi moom lañ daan tëjee njàng mi nga xam ne bu ñu déggee bu ñuy jàng eh, li fekk njàng mi jeexagul duñu reer nee na ñoom boobu ay xale lañ waaye nee na ñu ñuy jàng rib xim ti daax yi rek ñu daal di xam ne la ko njàng maa ngi bëgg a jeex te bu jeexee léegi ñu daal di yàq reer ñoo xam ne léegi dégg naa kon def guñu rib xim ba léegi waaw loolu kon li mu lay wan rek mooy eh, jëm ni eh, ñoom jigéen ñi lépp lu sëñ bi daal sant góor ñu def nañ ko daan sant ba ci version yi ñu wax ni ci ci bi xaatam ak euh, euh, kaamil ak xafiif wax nañ ne ñoom jigéen ñi xaatam boobu daf leen ko daan jox kon loolu itam ñu xam na ci ne weer bu mu la waree jigéen wird xamul góor ak jigéen wird tudd yàlla ñëpp ci toll góor ak jigéen sëñ ci waa sax boo demee am na ci fu muy waxee naan jox naa ko ñi aju ci man góor la wax ak jigéen boo demoon murtali ba léegi noonu muy góor muy jigéen xam naa daa tolloo ko rek tasawuf ak tarixa comme mooy li ñuy wax maxaamul ixsaan euh, jigéen bu koy jëfandikoo bu dee jigéen gu ndaw nay jël ndigal ci ay waajuram ay ne leen dama ciy dugg dugg ci tarixa sàngam wala dama jël wuttu sàngam ba ndigal la ko nga doog koo jël ci ko bu dee jigéen ju yooyu mag ba yor borom kër it noonu mu dem defi loolu loolu ngeen xam ne mënu ca ñàkk kon ndigal mënta ñàkk. xale mën naa tudd yàlla kenn terewu ko waaye bu demee ba nekk âge ba majeur mën na koo jël ci ci te amut euh, fukki at ak juróom bu demee ba tollaat ci nekk majeur mën na koo jëlaataat yeesalaat ko rek yeesal gi waxtu mën na ko mën koo def kon âge wut a nekk gàllankoor. jigéen ak góor yi wut a nekk gàllankoor ñëpp am nañ sañ sañ jëfandikoo ko bu dee ndaw li nag bu ko jëlee ci ndaw bu demee ba màgg euh, mën na koo yeesalaat. ca fii ci Sénégal nag lañ néewale doole jigéen ju werd waaye boo demee ci taalibi Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ña nga mor ña nga Moritani ku la ci gane si nga rus ñoom duñu ko sax duñu ko sax caaxaane suba ak ngoon nag dañ koy def kon loolu moom góor yi ak jigéen yi ñoo ci bari na léegi jigéen yoo xam ne xewal nañ ay xasida na nga xam ne xasida goo mën di xewal mënta ñàkk na nga koy jàng waaye bi nga koy waxtu wi nga koy jàngee nag bari na ci bu dee bi bisri la moom ci gën a siiw léegi wala ma maraaxib wala lu mel ne nooru daare ni amul genn xasida xasida yi gum doon ci yooyu diggante bi nga koy jàng jàng na werdu yu benn am na ci yoo xam ne lu mel ne nooru daare ni jàng na werdu yu ñetti yoon lu mu néew néew bu fekkee ne nga ko ca bar sax laay wax ca loolu moom ñun ñëpp ci bokkee muy góor ñi ak jigéen ñi surtout ndaw ñi nga xam ne ne ko Sëriñ Tuubaa jox di leen ci di leen ci soññi ba mu leen koy jox waxtu woowee ay ndaw lañ si am satu waxtu yi muy nekk man ma tàmbalee ko ci sama bopp ngir mu gën a leer gën a jege waxtu am koy jot ca Mauritanie boo xoolee atam boobu ci jamono yi eh, jeune dëgg-dëgg ci la nekkoon ci jamono yi ci la nekkoon dëgg-dëgg. Euh, Mauritanie yi ba léegi moom fonk nañ ko lool senegal gi fonk nañ ko nee naa la mag ñëpp a koy def waxuma la ak nag ndaw ñi man mi bokk na ci ñi ma ko jëlee kenn ci ko xamante ne doomi Sëñ Tuubaa la kon nañ koy jël ci kilifa yi yor. ko yàlla dimbali ba nga mën a àgg ci xalifa bi alhamdulilah nga jël ko ci moom ndax xalifa bi mooy sëñ Touba te ku ne xam na ne macha allah silsile bi moom ci moom lay tàmbalee mooy xalifa général des mourides mooy sëñ Touba euh, xam ngeen ne rek boo jullandoog sëñ Mountakha jullandaan moom rek bu yàggut ak jullit suba waaye boo yàkkamtee da nga yeexe dem ndax da xam ne dana jëfandikoo wérdu wi ci ginnaaw julli gi dana toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg bàggale ko doo ko jóg fi mu toog noonu nag la ko mag ñi daan defee muy doomi sëñ Touba muy mag ña leen jiitu woon muy njabootuk sëñ Touba gi nga xamante ni ñëpp bokk na ci. Euh, gis ne sëñ bind la boppam ne digal na ñi aju ci ñoom góor ak jigéen ñooñu nag ku ci am ndigal ci joxe ko sañ ko ko joxe ndax euh, sañ koo jël ni nga amee ndigal ci sañ ko jël noonu nga amee ndigal ci sañ ko laaj joxe ko. ndax gis nañ ci yoonu murit ñu bari ñoo xamee ne ay kilifa yi ci jigéen ñi ñu daan tarbiya bokk na ci soxna Fat Dia di taawu sëñ Tuba doonoon murabbiya bu mag di tarqiya di eh, defar nit ba àggale ko ci yàlla doonoon borom ay kusuufaat daraan eh, gis nañ ci njabootu sëñ Tuba it soxna may al kubra ak suxra soxna Fat eh, Fat Jaxate daan tarbiya ñoo ñëpp awraat yi dañ koy jëfandikoo kon ku ci am ndigalul euh, ca kan ko jëlee jox na la ndigal ci sañ nga koy joxe lenn lu koy tere ci charia duñ ko ci gis wala ci euh, tariqa werd maxuus di werd wu bari ay njariñ mag ñi fonkoon ko lool sëriñ bi daan ci soññee lool looloo tax mauritanien yi di naaru gànnaar yi fonkoon nañ werd wi lool sunu borom defal leen ci tawféex bu baax baax ba daanaka sax gis ci ñoom mauritanien boo xam ne ab murit lay doon te du jëfandikoo wérdul maxuus lu neew la kon nag wérdu wu am solo la woo xamante ni lu dox suñ diggante la ak euh, moo suñ diggante ak ak sëñ ak sëñ Touba sëñ jox ñu ko mu bari ay njariñ lool ñaan na ci ba tàyyi joxe na ko joxoon na ko mag ñi fi nekk ñëpp it daanañ ko jëfandikoo sëñ mag ñu jiituñu woon ñëpp tàmbale ko ci maam Cheikh Adama Gueye jaar ko ci mag ñi ci toppoon ñëpp sëñ Ibrahima saar Njaañ sëñ Massamba Diop saam ba ci maam Cheikh Ibrahim Fall sëñ Mbacke Bousso sëñ Dame Abdourahmane Lo sëñ Mad Lamine Gaye ba ni ngay accès ci mag ñi nga xam ne ñoo ci seen gën ba ci doomi sëñ Touba yi gis ngeen niñ ko fonke woon ñoom ñëpp Cheikh Modou Moustapha ba ci Cheikh Modou Mourtada koo ci miin sax boo ko xamee da nga gis ne bu jullee suba ci sëñ Abdou koo ci gis ba léegi rek Eh, boo demoon ci waa këram laaj leen daañu la wax eh, riwaay bi ñu daan joxe ñi kaamil ñi xafir daa nga dégg bu yàgg ñu naan la sëñ Saaliwu daan wax ni sëñ Mbàkke Buso ma joxoon daa nga dégg ba tey it ñeneen ci ñoom doomi sëñ Tuubaa yi ñii sëñ Basiiru leen ko joxoon ñii kane leen ko joxoon ndax wérdu bi kon daal lu am solo la loo xamante ni mënuñ ko ñàkk ndax doy na sëkk rek koy def insha allahu taala dana dugg àjjana si yàlla dana dox sa digganteeg lépp la naqari fi ci àdduna si waxuma laak nag booba ngay àgg booba ngay dem alaxira uktub li man axasa wirdi yaa karim mustaamilan bihi sawaban laa yarim yaa rabbi yajcal il muridina maa fi xisnika alxasini wa shamlaj maa am njëriñ bu wirdu bi am njëriñ tax na ba sëñ Basiru Mbàkke taalif na taalif bu am solo di soññi murid yi ci wirdu yi di leen wax li ci yàlla def lépp ci xéewal di leen wax ne wirdu la wu am maanaa woo xamante ni day mel ne sekkar yi nekkoon ci wirdu yëpp yàlla boole na ko Sëriñ Tuubaa ci wirdu woowu bu ñu dee bëgg a xàmmee ko itam xeeti werd yi tëggin yi ci tënk rek dañuy wax ne bi ñuy tudde xafiif bokk na ci liñ ko mën a xàmmee mooy day am xasbi allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim juróom fukki yoon daf cay am xafiif ak kaamil xaatim amul yooyu amul loolu beneen bi mooy bu dee lu mel ne kaamil boo ko bëggee xàmmee ràññiku gi mooy daa am xasbunallahu wa ni'mal wakiil ñaar téeméer yoon loolu itam amut ca xafif amut ca xaatim xaatim boo ko bëggee ràññee ci tënk mooy dafa am euh, laqad jaakum juróom-benn fukki yoon loolu it boo demee ca xafiif ak xafiif ak kaamil amu ca ci xaatim rek la am kon loolu euh, yan la rek yu ñu mën a joxe ngir ku bëgg a xàmmee benn ci tëggin yi boo jëlee benn ci yooyu rek boo ci gis da nga mën a xam ne bii xafiif la wala kaamil la wala xaatim la waaye ñu dellu rek di fàttaliwaat ne ñoom ñett ñooñu daal wuute gi am seen diggante ci baat yi ak waxin yi taxut mu wuute ca biir waaye biir gi moom lépp lenn la ndax lépp jóge na ci sëriñ bi ci ay càllala yu wér yoo xam ne dañu mën la wax ne la bii sëriñ Mbàkke Buso moo ko jëlee ci sëriñ bi bii sëriñ Mbàkke Jóob Dagana moo ko jëlee ci sëriñ bi bii yu mel noonu ba mu jeex boo demee ci Ighnaa'ul Adiim moom ñett yëpp dog faa dajale andi ko fa Ighnaa'ul Adiim bi xabaaya awraad Cheikhinal Xadim ñett yëpp dafaa dajale andi ko fa dafa andi xafiif andi kaamil andi fa xaatim toftale loon toftale leen itam comme ni ñu toftaloo ci bi ñuy ñëw ndax xafiif moo jiitu kaamil moo ci moo ci mujj. wird bi it euh, jël giñ koy jël bépp jullit di murit saa boo xamee ne nekk na mu kallaf mën naa jël wird kenn waxul ne wird da ngay ligg ba am ñeent fukki at wala da ngay am juróom fukki at wala juróom benn fukki at doog koo seen jël kenn ci ñun wóoruñu ba xam dana dund loolu. képp koo xam ne julli war na la nekk nga mukallaf rek xamal ne ndigal li sëriñ bi digale ci ñu war a jël wetu maaxuus dab na la yow kon war ngaa jël wetu wi eh, sa boo ko jëlee nag góorgóorlu ci sart yi sa kem kattan te boo ko jël rek nga di ci bàyyi xel ne jël ko ngir jaamu yàlla jël ko ngir tarbiyewu jël ko it ngir jëfee ndigalul sëriñ bi nga xam ne mooy sëb sëriñ te mooy sëriñu murit yëpp muy Cheikhul Xadim radiyallahu anhu dafa wax ne fa jamaa al kulla wa zaada wartaqa bi muxkamil kitaabi nicma murtaqa fa in axadta wirdahu axadta wirdal jamii laa taxaafu kapta wax ne sëriñ bi yàlla daf ko cee dajaleel ci wirdam wii mbooti wird ya jiitu woon yëpp wird qaadir yi al wird chaadir bu ca nekk mbóot ya ca nekkoon ak secret ya ca nekkoon ak lépp la ca nekkoon ci ay maye ki ngëneel suñ borom daf koo dajalee ñett yëpp ci warlu boppam bi ak ngëneeli boppam yoo xam ne amul ci benn euh, loolu rek war naa tax nit ki bàyyi ko xel war fonk ba tax na mu wax ne bu fekkee ne nikki jël na bii muy bu sëriñ bii mel na ne jël na yooyu yëpp boole koog banee naat bu bokkutoon ak yooyu maanaam mbooleem loo xamante ne bii ne doon nañ ko digle wala doon nañ ko digee ca ñetti werd yooyee boo jëlee wu sëriñ bii danga koy am da nga koy dajale am ko wante amaat digee yi sëriñ bi digal boppam te ñee digee wuñ ko woon. Euh, maggi bu tani boo demee ba léegi ñëpp ko jëfandikoo maa ngi ci joxe misaal rek ci ña jiitu woon gaaw xaali ko waaye même ñi dund nii ñëpp ko jëfandikoo tey boo demee ci ay banu daymaan da ko fekk cheikh baññuug di seexu bu mag boobu murit di joxe werd bi di ko jox ay góor di ko jox ay jigéen. boo demee ci banu daymaan ba tey da nga fa fekk waa kër Cheikh Mamadou Yadaali yi ña ci nekk ay taalibe murid di joxe wér du ba tey jii boo demee ci banu daymaan da nga fa fekk alqaadi Cheikh Seydou wul Mazrouf di borom xam-xam bu mag jële woon wér di Cheikh Sidi Ahmadou Lismahum kooku jële ko Sëñ Tuubaa mi ngi joxe wér du am na taalibe yu bari góor ak jigéen da fa fekk borom xam-xam bu mag Cheikh Mouhamad bun Ahmad Miska di joxe wér du yi ci pësteef bu mag a mag a mag ak sart waxtaan ci yow bu baax a baax boo demee ba tey eh, da fa fekk eh, da nga fekk eh, ci idewal xaaj idewal xaaj da nga fa fekk ay góor ak jigéen mag ñi di jëfandikoo wér du jële ko ci ay mag dem naa ci at yee weesu rek suñ kër sëriñ bu mag boo xam ne taahul muxtaarul muxtaarul wul ahmad ibnul xasan ahmad ibnul xasan mi may wax doomam dinaa wax taah ci mu jug dundam dem naa ziar ji ko muy ku baax moo xam ne lu bare bari ci sëñ Tuubaa booba màggat na ba nga xam ne sax jaxasootut te nit ñi ci fenêtre rek lay gisee teg nit ñi bokk na ci li ma wax ne ma wérdu wi ci baayam la ko jële woon waaye nag ginnaaw bi tukki woon na Sénégal yeesal ko ci sëñ Basiru ci at yu mujj yi njëkk muy faatu daana ma wax ne ñëw na ba ci Sénégal ci Cheikh Mahamadul Murtada jëfandikoo ko ci boo demee ci kër Cheikh Sidi Ahmadul Dusmuhum bi nga xam ne sëñ Tuubaa ko joxoon wi da nga fekk doomam yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi di ko jëfandikoo doomam yu góor yi Cheikh Muxtaar ñoom Cheikhul Fadil Cheikhul Moustapha doom yu jigéen yi ba tey ki ñu wax umun nabi boo demee ci banu Yaquub waa kër Muhammad Faaq Omar da nga fekk doom yu jigéen di ci tàmbale ci doom jigéen ju mag jooju soxna ay cheikha tuttu cheikha Zeynab bint Faxa Omar ak ñoom ñëpp rek kon daal day mel ne wérdu moom ñoom fonk nañ ko loolu ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax moo tax sax seenu taalibe bu xo dangay gis man ngaa jaxasoo nit lu yàgg yàgg mu nekk imaamu jàkka am na ci ku ma ku ma daloon imaamu jàkka ju mag daanaa fa julli léeg-léegi ci lu yàggut rek la ma doog a xàmmiku ne ma man murid laa maa ngi wérdu wi diwoo ma ko jox diwoo ko jox sëñ Tuubaa ko jox kon ñoom day mel ne sax seenu taalibe ba léegi rek comme noonu dañuy jaayanteeg sëriñ Tuubaa di jëfandikoo wér jël wér doom boobu buñ noppee nag donte mën nañu bañ a ñëw Tuubaa lu bari léeg-léeg rek ñu ñëw ziar delluwaat kon daal nañ ko fonk xam ne lu ñu yàlla jox la ca lu mënta ñàkk la ca buñ koy wayfal mukk naan nag eh, rek eh, ñii mën nañ ko jëfandikoo ñii bañ ko ñàkk bañ a jëfandikoo na ko ñëpp jëfandikoo képp koo xam ne charte yi te nga mën koo jëfandikoo dajewut ci yow góorgóorlu ba charte yooyu daje ci yow di tënk ngëneelam rek bokk na ci Eh, wirdu wi mën naa mën naa wecc wirdu wu ne te wenn wirdu mënu ko wecc loolu moo ko wax loolu kon bokk na ci liy wane war a tax itam ñëpp gën koo fonkaat gën ko joxaat yitte dégg naa audio bu am solo fan yi vidéo bu am solo bu sëñ Muntaxa xalif sax de Mouride yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal di ci joxe ndigal ci wirdu wi di ci soññee waaye yokk na ci lu am solo na ngeen ko jëlee ca jëlee ko ci ki nga xam ne moo ko yor kon na nga ko am na ndigal ci jëfandikoo ko ak joxe ko. am am ngeen ndigal ci yéen yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali wér di sa sa sañ ko ko jottali waaw noonu noonu noonu rek la demee ndax moom ndigal la am la kenn ku ne sañ naa boo xam ne sart sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag dañ dañ dolli kon. ni ngeen ko bëggee ci li mu ndigal a xaasu kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ci ne am na am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën nga ko jotal waaw ah, ngeen ko jot gën gën koo jot lente noonu noonu rek la demee jërë ngeen jëf. beneen bi itam mooy euh, damay wax ne nag càggante gii ci am ci lu bari ci taalibe yi ñu sàggan ci ba ñu bari sax waxuma la jëfandikoo waaye tur wi sax xamuñ ko far dama jàpp ne bokk na ci li jur càggante googu mooy. Euh, li ñuy wax madat maanaam tëb bu mu for courant bu dëgër bu for bi ci yàlla def defal ko sëriñ bi ci wérdam wi ak jeexit juree ji mu am ak ni man a gaawee ci man a euh, soppi nit gaaw ci mën a yéege nit gaaw ci man koo tëbbu ay leer ak yu bare bare jàpp naa ne loolu bokk na ci li tax seytaane jéem a def pexeem lu man ci jéem a fànq ko ba nit ñi mu fef seeni xel ba duñ ko jëfandikoo ak di leen ko ragal loolu man jàpp naa loolu ci la bokk ndax seytaane nag moom du tekki ay jàjjam mukk fu mu toll rek lépp lu mën a jariñ nit ñi dana jéem a dox seen diggante ak moom ci ragal loolu leen ko wala taayeel loolu leen wala wan leen ne leen amul solo wala nangam ak nangam waaye ku ne xam na ne war naa doy sëkk rek ku dib taalibe moom sëriñ bi yorul lu amul njariñ sëriñ Tuubaa amul lu amul njariñ ak dundam su cee def lu amul njariñ mosu ko cee wax waxuma la sax mosu ko cee def waaye lam an xumaalam yu fi di la wax sama xol mosu jublu lu amul njariñ kooku nag suñ borom la mu koy jagleel lépp itam ya gën a kawe doon te waxal na boppam ci barab itam ne suñ borom daf ko cee dajale mënal ma jaamia mboolem li nga xam ne moom la nit yàlla yi doon wut di ko dabu te mu jafe lépp la ko suñ borom booleel dajaleel ko ci biir dom kon yooyu yëpp war naa tax nit ki gën koo bàyyi xel gën cee waggar gën koo far gën cee farluwaat. wërd bi nag yaatu na lool incha allah xam naa bu danañ ci def ay waxtaan yu yaatoo yaatu. Euh, màggal gi ren incha allah du ñàkk borom xam-xam yi ci def waxtaan bu baax surtout Mauritanie yi ak seen dal bu ko fa ñëw du ñàkk nga dégg ci lu bari ak borom xam-xam yu bare bari ci yoonu murit ndax day mel ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha it loolu mooy li nga xam ne mooy yéeneem ren ji euh, yeesalaat ko fàttaliwaat ko ndax yiw la woo xam ne ñëpp war nañ koo xam ñëpp war nañ cee jariñu tax na ba gis ngeen déclaration bu am solo bi mu defoon ci bu yàggul nii rek tam jaaroon ci waa daayiratu Rawdu Rayaahin ñi nga xam ne ñoo yor li wàllu xam-xam beeg li jëm ci xam-xam culture ci yoonu murit li ci ëpp solo waaye gis ngee it incha allahu taala euh, yeneen dana ci feeñ mooy danañ molteel yi ciy wax danañ ko gën a tasaare daal incha allahu taala ba bañ dem bàgg ci fépp fu murit nekk nga xamante ni xasaayitu sëñ Tuubaa mi war na mën murit yëpp ko am niñ koy amee incha allahu taala noonu lañu amee werdu wi waaye nag noonu lañ koy xamee it xam li ci nekk lépp ak façon nañ koy defee wa billahi taala tawfiq wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi tëjee wax rek wahab liman axasa wirdi yaa karim mustaamalan bihi sawaaban laa yarim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon daal werdu wi moom murit bu nekk na xam ne am na ndigalul Sëriñ Tuubaa ci mu jëfandikoo ko mooy li ñuy wax iznul am waaye nag li gën a wéral werdu woowu nga xam ne xam ne mooy wane ne yaa ngi def maaxuus dëgg mooy nga def li sëriñ Touba wax te mooy dem ci koo xam ne am na ndigalul joxe werd wi mu jox la ko loolu mooy li ñuy wooye isnul xaas kon murit bu ne bala ngaa jëfandikoo werd wi ginnaaw bi nga xamee ne ñëpp am nañ ci isnul am war nañ cee wut li nga xam ne mooy isnul xaas mooy ndigal loo xam ne da ngay dem ci ko am werd wi mu jox la ko nga di ko jëfandikoo te respecté ko li feeg yaa ngi dund képp ku ko defee noonu Serigne Touba nee na di nga doon muumin di nga doon muslim di nga doon muhsin maanaam di nga doon jullit dëgg daal boo xam ne melokaan yi sunu borom bëgg ci ab jullit di nga ko dajale te it di nga doon murit saadix ndax ndigalul sëriñ Tuuba la kon nag loolu rek war naa tax murit yëpp sawar ci werd wi te fonk ko moom werd ma xuus mi nga xam ne sëriñ bi nee na ci yàlla la bàyyi ko jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko minha tawaadu lil qahaari malikihim wa sidqu wa zuhdu ma tadhiri afaati minha altijaau ila arrahmani fi abadin jalban wa dafhan bi inhaai shikayaati العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آه على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى غير البريات صلى عليه مع التسليم مرسله بالآل والسب من فازوا بجناته صلى عليه مع التسليم باعثه أزكى صلاة بها نكفى الخرورات صلى عليه مع التسليم خالقه بالآل